élection locale 2022 ci département de Mbacké l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol indi initiative bu am solo fa seeni ci ànd ak mboolem candidat toutes les coalitions toutes les listes mu doon municipal wala départemental jàpp leen seeni ay plateau ay émission ay directes ci concept bi ñu duppee tànneefu askan wi nga ci ànd ak ñun ak ay moyen technique yu xarala ngay am en direct sur plus de vingt sites internet mais également après le direct di nga am intégralité émission bi bu ngeen amatee ay caravane ngeen am ay ay proximité yi ay porte à porte ngeen def déclaration saisissez cette opportunité ndaxte moo leen di yembal fa ngeen bëgg seen message àgg fa mu àgg fa si li mu gën a gaaw a gaaw ànd si ak ay professionnel si mbooleem wàll lépp lu ngeen ittewooti si wàllu wunu mel couverture médiatique appel ba jóg taxaw tem ngir ànd seeg yéen bu ngeen si bëggee ay renseignement mën ngeen contacter numéro yii di défilé ak sunu service commercial local 2022 si département de Mbacké appel ba da see soobu ba jeex tàkk ngir gindi askan wi mais fii may waxe yéen ci compte mairie de Mbacké ci trésor public boo demee dañ fekk am nañu benn épargne bu quatre cent huit millions li waral loolu mooy dëkk mënoo ko defar te wutuloo xaalis xaalis boobu it am na instrument financier yoo xamante ni nguur Sénégal moo ko état du gouvernement état mooy administration ak gouvernement gouvernement yi dañuy changer dañuy dem mais administration yi dafiy des ñoom ñooy yore les planifications ñooy yore les programmes et les projets beneen bi ci topp it teg nañ ay stratégie pour wàññi dépense yi nga xamante ni commune daf doon dépense li fonctionnement bi wàññi bu baax tamit ñu fexe ba renverser la tendance c'est-à-dire jël soixante pour cent ci xaalis ñi am jëmale ko ci li nga xam mooy investissement jël vingt cinq pour cent yi mu jëm ci fonctionnement loolu li ko war rek mooy ñun suñu objectif lenn la mooy tabaxaan Mbàkke defaraan Mbàkke parce que Mbàkke situation ci loolu ñu gis ne buñ ñu jógee ci programme de redressement boobu dañuy jëm ci li nga xamante mooy wér-gu-yaram wér-gu-yaram boobu ñu def ci benn programme bu requalification territoriale requalification teritoriale boobu mooy quartier yi nga xam ne mooy les quartiers périphériques te yàlla dogal suuraale wuñ leen woon ci dara ñun ñu ne nañ ci wala si mani ñu jël lu mel ne quartier sancaan te léegi conseil municipal sax jël na décision waxtaan ci ak kilifa yi nga xamante ni eh, kilifa yi daaru salaam jël sanc yi rattaché ko ci daaru nga xam léegi doonatul sanc yi mais dafa tudd léegi salaam un daaru salaam deux trois ak daaru rahman tabaxal leen poste de santé équipé ko rendre ko opérationnel lotissé marché jox ko commerçant yi andi fa ndox ndax dañuy ko andi neuf bornes fontaine dans un premier en deux mille quatorze pour permettre leen ñu am ndox après ci lañ yokkaat def fa extension bu am solo ba quartier yëpp am ndox bien vrai que danañ leen dolli ndax am na programme bu nekk en cours lancé nañ ko ba am na société bu ko gagné donc on a commencé les travaux donc incha allah la semaine prochaine bu avant démarrage mu démarré ndax liggéey bi euh, ñu nga def trente six millions yoo xam ne extension addiction d'eau te sañcaan ci amaat lu am solo ñu yóbbu leen courant courant boo bien vrai que mën nañu wax ni moitié bi am nañu mais am na poche yi des programmé nañu actuellement nii euh, bu avant le démarrage bu jotee rek à partir de la semaine prochaine automatiquement dañuy comment danañ mën a continuer liggéey boobu neuf kilomètres cinq cent yoo xamante ni dañ koy yokkaat ci périphérie def ndax ñu ko fas yéene def ci quartier Santhiane yi dañ ko def élevage Diamaguène un Diamaguène deux renforce renforcer Guy Dakar ak Ndiayène danañ renforcer Mbacké Diourmou Ndiakal ak Bari danañ renforcer aussi Paleen ba Ngàcc Fall dañ renforcer Daaru Salaam aussi ci côté sud bi ak ci côté nord loolu muy des programmes yoo xamante dafa am solo pour euh, périphérie dëkk ndox mi 16 kilomètres yooyu ñu prévoir aussi préfé périphérie dëkk bi ak yenn poche yi nga xam ne am na lu mel ne yaaween ak euh, afe ak euh, mbàkki dimb ak benn partie ci jàmm gën ak élevage wante aussi benn partie ci njakala loolu dana permettre population yi ñu gën a am accès à l'eau et à ci côté santé bi toujours tabax nañu benn poste de santé Paléne tuddee ko suñu maam Seynabou Ndiaye avec tous les équipements tabax nañu benn post de santé fii ci Ndiayène le médecin chef de district moo wax ne bu logement ICP bi parewul kenn du ko commencé nañu travaux logement ICP bi jàpp nañu ne d'ici le mois de mars avril dina pare ñu mën ko ubbi ndax déjà équipement yi pare na ñu au niveau de ci loolu noonu lañu accompagner le poste de santé de Gawane jox leen une ambulance médicalisée ak aussi ay benn échographie pour permettre leen seen plateau de ñu mën ko relever mais aussi di jël en charge yenn jigéen ñi nekk ci jafe-jafe ak maladie en urgence ci toujours ci santé yi bi ñu ñëwee poste de santé yi trois cent soixante mille lañ daan am dotation ñu yóbbu ko à un million pare nañu pour yokkaat ko yóbbu ko à un million cinq cent ci loolu ñi tabax pare na benn imagerie médicale boo xamante ni une rajo numérique lañ rajo bi quarante millions lañ coûté actuellement mi ngi Dakar jàppoon nañu sax danañ ko réceptionné bien élection yi mais liggéey bi da ngeen taxaw day wéy donc bu ñëwee rek dès la semaine prochaine ñu installé ko inauguré ko jébbal ko askan wi daal di continuer ci année deux mille bi continuer continuité projet bi mooy tabax bloc opératoire boo xamante ni dafay am salle de préparation salle de réveil ak salle de réanimation loolu programme bi deux mille vingt deux bi l' argent est disponible aussi xaalis bi disponible na mu ngi trésor incha allah rabi dès la semaine prochaine ñu yàlla dimbalee bu ñu ci xat-xat yi ñu mën a procéder ci li nga xamante ni mooy lancé appel d'offre na xaalis la buñu ñu ndax mooy quatre cent huit millions yi ñu ci prévoir deux cent millions yi dañ ko bëgg a injecté marché bi pour liggéey phase deux wu marché de Mbacké deux places publiques yu prévoiroon deux mille vingt et un dañ lancé ko ba pare donc élection yi yegg si mënuñu joxe avant ce démarrage foofu dañ koy liggéey ak deux yi mille vingt deux yëpp seen xaalis disponible la ci quatre cent huit millions la bokk bloc opératoire bi ci la bokk ak beneen programme aussi ay lampadaires yu commandé yoo xam ne am nañu un projet de mille cinq cent lampadaires ñoom déjà cent moo jot ñëw en guise exploration ñu yoon ko askan wi est-ce que bëgg nañ ko te ñu installé sang yi tas ko ci quartier gis nañ li ñu bëgg nañ ko après si kon nañ ko pour cent lampadaires yi a ñëw ñu mën koo dugal ci li nga xamante ni mooy mooy dëkk mais ci biir euh, liggéey bi dañuy tàmbali liggéey ba planifier li nga xamante ni mooy élection yi ci la sunu mbokk suñu premier adjoint Mor am ay jafe-jafe Mor mën nañ nag c'est l'accent le plus présent ci campagne ndax liggéey yu bari ci wàllu politique bi ëpp moom laa ko confié ma ko doon muy jigéen ñi muy jeunes yi muy collaborateurs yi muy les nouveaux entrants ñi door a bokk si ñun ñëpp moo doon coordonné ñu téye yoon teg ko yoon la mbiru justice la mais li nga xam rek mooy dara sax te lu waay def da nga wéet ak sa bàmmeel jàkkaarloo sa borom ñoo comment laa ci def rajo lay waxee ñi ma war a dégg ñi may dégg mais ñu xam ne rek lu waay def da nga wéet ak sa borom sa bàmmeel te yow di yàlla ci liggéey bi côté santé perspective yi am na solo ndax jël nañu décision ci biir programme bi nga xamante ni dañ koy lancé pour deux mille vingt li nga xamante ni mooy sëriñ daara yi da ngeen a teel a intégré ci suñu programme bi nga xam ne moo jëm ci wàllu jàng ak jàngale depuis 2014 lañ commencé chaque année ñu insérer sëriñ daara yi benn installé benn rubrique ci budget bi bu jàppale leen pour ñu mën a créer benn journée ci biir weeru koor yi pour mën a jàppale te waxtaan xam ne ñoom ci njàng mi ak njàngale lañ bokk évolué nag entre temps jàppale nañ leen ba lu mel ne ay édicule publique ay tuwaaret xam na seen daara yu bari yoo xam ne jot nañu ko def programme bi nga xamante moom lañ bëgg a continuer ci deux mille vingt deux deux mille vingt sept bi bëgg nañ léegi chaque année ñu choisir dix ba quinze daara alquran defal ay mbaar mbaar yu baax yoo xam te dongo yi dina ci mën a di jàng ci sécurité te it bu ñu gënee évoluer dañu xool yi leneen luñ leen war a mën a dolli bu jëm nag ay tuwaar leneen commencé woon nañ aussi cible ay daara dugal leen ci audience foraine yi xale yi pour ñu mën a am ay kayitu juddu ndax xale yi ni ñuy protéger xale yi nga xamante ni dañu jàng école nasaraan am ay avantage ci école yu baax ay jàngalkat yoom dañ leen di fay am kayitu juddu ñu ne nañ ci liggéey loolu dénkoon naa fi premier adjoint ba jàppal ne daara yu baree baree bare bare ba am nañ ay kayitu juddu ci daara yi ba tey bokk na ci mille euh, vingt deux deux nga xamante ni moo jëm ci couverture maladie universelle am na ay sëriñ daara ñu jotee ciblé waxtaan nañ ci ñoom ba bëgg nañu commencé au moins ak juróomi daara jël en ay dongo daara ci li nga xamante ni mooy maladie couverture maladie universelle ci biir CMU lépp ci wàllu santé ci biir CMU bi aussi prévoir nañ ci li nga xamante ni mooy regroupement ñi nga xam ne bàyyi peel yi ndax seet si nañ ma waxtaan nañ seeti naa leen waxtaan naa ak ñoom ci li nga xamante ni mooy seen jafe-jafe ndax xam ku ci tawat rek wala sa njaboot tawat da ngeen jafe-jafe pour faju ba dañ lay dajaleen pour faju moo tax loolu ñu ne dañ jël ñaari couche yooyu jàppale leen pour ñu inséré ci xamante ni mooy couverture maladie wàllu njàng ak jàngale ginnaaw bi nga xamante ni réhabilité nañ école Maam Cheikh Anta Daaru Salaam école bi nga xam ne mooy école Maam Cheikh Ibrahima Fall réhabilité école Cheikh Omar Diop réhabilité école Sëñ Massamba réhabilité aussi école Mamor Diarra Mbacké informatiser nañu toutes les écoles yi nga xamante ni moo nekk ci suñu juridiction ci commune bi tey jàng tey avant état bi di ko appliquer ñun fekk nañu koy appliquer donc fourniture yi dina ñëw ci école yi bien avant ñun jënd nañu benn risographie bu am capital bu am euh, capacité de dix mille copies par au niveau de l'IEF pour que jàngalekat yi ak directeur d'école yi seen examen yi ak seen euh, proposition yi ñu am possibilité man ko def tirage yi au niveau de l'IEF bi ñu tegee risographie bi dañ cee boole mille cinq cent rames de bac pour mën leen couvrir durant toute l'année ci cadre boobu ba tey it bépp dépense wala bépp organisation boo xam jëm na ci jàng ak jàngale commune de Mbacké mu ngi accompagner IEF bi mën nañ sa cee wax Covid bi ci Covid bi bi bi nga xamante ni mesures yi dal na ci kaw askan wi li ñu njëkk def mooy déggoo ak le préfet de Mbacké bi fi nekkoon comité bi li ñu soxla woon maire de Mbacké yëkkati ko teg ko ci seen loxo pour démarrer noonu nag lañ accompagner. école yëpp ci ay masque ci ay laabme ak lépp loo xamante ni kit sanitaire bi nga xamante ni moom la IEF demandé woon fexe woon nañu ba école yëpp am bi ñu def examen yi bi nga xam informe nañu ñu xam ne segam élèves yëpp sun ay doom lañu suñu dëkk lañ nekk ci lañu jël quinze mille cinq cent cinquante masques jox IEF 40 lave-mains 40 thermoflash du savon jox ko ñeent pour ñu séddale ko ci lycée yi ak collège yi ak école primaire yi pour élèves yi moo def examen dans les meilleures conditions loolu liggéey nañ ko ci éducation te xam nga liggéey bi dafa dynamique day continue du taxaw ñu gis ne élèves yi ñuy jàng mais am nañu jafe-jafe ci wàllu léeru moo tax mairie de Mbacké tabax benn complexe communal de la jeunesse dégg ko professeur Assane Ndiaye mais ci biir complexe communal de la jeunesse am na une bibliothèque municipale bu ci def tudde ko professeur Rabi Niamousi bibliothèque municipale boobu njariñam mooy programme préscolaire xale yi nekk école primaire maternelle ba ñuy dem primaire ba keroog ñoom doctorat livre yi ñuy soxla day nekk ci biir bi mais innovation bi ci am mooy livre bépp doon boo xamante ni am nga ci version physique xam na koy jël téye ko nii da ngay am version numérique loolu na pour ñu mën koo appliquer liggéey bi pare na mooy chaque école day am plateforme boo xam livre yi nekk ci programme am daf ci dugalal ñoom ay code d'accès yoo xam dañuy accéder rek jël livre bi liñ ci soxla partagé ko ak élèves ndax gis nañ ne classe yëpp rek am nañ groupe WhatsApp bu professeur bi jëlee livre bi ci ci plateforme bi télécharge ko séddale ko groupe WhatsApp bi dana permettre xale bi ci téléphone am wala téléphone yaayam wala téléphone papaam mu am ci li nga xamante ni mooy chapitre bi mu war semaine bii di ñëw avec explication yi nga xamante ni moom la ci professeur bi doon loolu dafay permettre xale yi nekk. à jour par rapport ak sa àddina tool ndax boo occupé wul xale yi jox leen contenu ci seen téléphone yi yoo xam dañ koy moom lay jànge dañu obligé di ko utiliser à d'autres fins yëpp ci innovation njàng mi la ak njàngale bi ci loolu ñuy ñu ngi benn projet bu am solo boo xamante ni euh, ñett ko seet muy KFW muy état du Sénégal ak KFW ak la commune de Mbacké KFW financé na commune de un grand projet via ministère de l'enseignement supérieur et de et de l'innovation muy benn ISEP ndax ISEP yi état bi day teg def ay proposition partenaire technique financier yi xool ku ci nekk ban zone moo la gën a intéressé ban zone nga mën a financé ban zone nga mën a jàpp mais particularité Mbacké mooy Mbacké dafa matière cest dire Touba day dëkk bu mag nekk deuxième ville primatiale du Sénégal c'est-à-dire quand on parle de mooy ñaareelu dëkk bi nga xamante ni moo ëpp dayoo ci wàllu superficie wante aussi ci wàllu doomu aadama yi fi dund wala aussi ci wàllu koom-koom bi participe ci réew mi loolu nag moo tax Touba am na yenn euh, infrastructure wala yenn école de formation wala yenn yoo xam amu fa looloo tax Mbàkke Euh, boo xoolee ñu élèves yi jàng si Mbàkke élèves yi nekk Mbàkke quatre-vingt pour cent yi Tuuba lañu jàng loolu aussi ñu ni koy gérer def ñu fi nekk te xàmmewuñu éléve bu Mbàkke élèves bu Tuuba li ko waral mooy Tuuba ak Mbàkke ñaari commune lañ mais benn communauté la te lépp ci kilifteef Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nekk loolu tax ñuy liggéey ci l'intercommunalité entre Touba et Mbacké conseil municipal bi voté na ba d'accord ci intercommunalité bi conseil municipal bu Touba d'accord na ci waxtaan na ak le maire sëñ Abdou Lahad Ka donc bu ñu jógee ci ñu dañuy procéder ci li nga xamante ni mooy l'intercommission ñaari commission yi daje ci wàllu njàng mi ak jàngale mi Touba li mu war a participer mu koy participer Mbàkke li mu war a participer mu koy participer ñu boole ko mu doon benn parce que élèves yi ñu leen jël en charge ci biir participation bi déjà rek am na en vue un projet bu am solo de transport scolaire boo xam ne Touba ak Mbàkke ñoo pour mën di transporter xale yi ci condition yi nga xamante moo gën toujours ci wàllu éducation bi euh, perspective yi yaatu na yaatu na loolu d'ailleurs euh, ci biir euh, complexe communal de la jeunesse bi prévoir nañ ci ay rencontre yoo xamante ni mensuel lay doon donc commune bi dafay jël ay programme bokk na ci programme bi ku mel ne Maam Mor Jaara yi élèves yi war nañ ko xam ñun élèves yi war ko xam ñu bëgg dénk enseignants yi nga xamante ni dañuy jàngale école Mame Cheikh euh, école Mame Mor ñu def ay recherche pendant un mois deux mois def une restitution ci biir salle polyvalente su defee restitution ci karamu njabootu Mame Mor def benn synthèse mu nekk des cours yoo si des cours yu mën a dispenser élèves yi pour ñu xam exactement école bi ñu nekk di fi jàng kooku mooy kan bu ñu defee loolu danañu mën a liggéey ci li nga xam loolu euh, les marqueurs territoriaux ndax dëkk yi développé yëpp ci àddina dañuy basé wu si les marqueurs territoriaux maanaam les réalités de la localité ndax Mbàkke su fekkee da nga ko bëgg a bu koy yemale Bambey wala beneen dëkk da ngay da ngay ndax réalité yi nekk ci dëkk bi dafa wuute ak réalité yi nekk ci neen fële la preuve mooy chaque quartier kilifa ga fa ne mooy délégué de quartier moom mooy seet ki ko neex mu proposé ko ñu mën ko ñu mën ko dénk li nga xamante ni mooy quartier boobu boo fekkee xamuloo walla maîtriser woo comment ça sa passe man nga nekk un figurant pendant des années doo jubóo kilifa yi doo déggoom ñoom ci ay programme te liggéey bi mën naa am soxla te dëkk bi fi fi mu tànn mooy Touba par exemple booy xool quarante cinq degré lay dem amul benn ressource naturelle bu fa am jegewul géej jegewul benn activité boo xamante ni dafay war a mën a jur xaay war a mën tax nit ñi daw jëm fa mais li tax nit ñi daw jëm fa mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul looloo gis ko tëj këram almadi ñëw takk ndigam def tànku neen xëyal kilifaam ba màggal jeex mu taalal koy loxo sëñ bi ñaanal ko mu dem loolu mooy capital immatériel sama mbokk yi souvent dañuy jàng tuuti wax lu bari adduna bi dafa dem ba ñi nga xam ne dañuy ñoo ko jiite ci wàllu économie dem nañ ba xam ne ndekk le capital matériel dafa doon loo xam ne day dem ba am fu mu sës te bu fa sësee day deltuwaat ginnaaw mais ñu dem ba découvrir na am na beneen capital bu ëpp doole la capital matériel muy le capital immatériel capital immatériel boobu moo war un multimilliardaire jóge Dakar gaare oto bu jar cent millions takk ndigam lu lu mu doon bañ këram mu koy nangu ànd ak njabootam di liggéeyal nit ne moom ba pare dalal ko loxo kooku ñaanal ko mu dem ñaan googu yaakaar jooju ak xel mu dal ak équilibre social bi muy am ci moom loolu milliard mayoo ko bu ko milliard mayoo moo tax moo tax sama mag le président la république que mu bàyyi xel ne citoyen ordinaire amul citoyen tout court mu am ci biir citoyen yooyu nag yàlla mooy tànn ku ci nekk def ci moom la ko neex comme ñu ko yàlla tànnee def ko président la république mu yiif ñun ñëpp di utiliser alal réew mi ni mu ko neexee ñu jox ko suñu alal mu utiliser avion di utiliser toutes les commodités et avantages noonu ko yàlla cërale cër boo xam ne dafa am limite dafay am fu muy tàmbali am fu muy yam nga xam ne noonu ci ci matériel nga xam ne noonu la yàlla cërale ay kilifa yoo ci biir capital matériel cër yoo xamante nii dafa illimité daanaka dañuy dund ba bàyyi ko fi fañ leen denc sax li génn ay ressources yoo xamante day dundal seen njaboot na bàyyi xel ni yàlla moo sàkk ñaar capital matériel mooy nitu nguur àddina ak capital immatériel mooy nitu yàlla seen borom gërëm bu fekkee ci nag li yàlla dogal ci yow d'accord nga ko bëgg ñu la koy matalal a cent pour cent te li yàlla dogal ci keneen nanguwoo ko mais da sonal sa bopp da ngay sonal sa bopp durant toute ta vie une parenthèse précision parce que dafa jot léegi njabootu Serigne Touba euh, bu wax jotatee domaine ku ci nekk nga ca xam war caa wax wax ci ndax sëriñ bi yàlla fàggul na ko lu bari lu baree baree bari Thank ak yeneen Touba ak Mbacké suñu Touba ak Mbacké la projet bi wax bi tamit sëñ Touba fii la la ñu yàgg maanaam boo xoolee gox yi gën a màgg si yoonu Mouride dina nekk ci li ñu gën a tudd si yoonu Mouride am nañ ci kër wala si njaboot bu gis Ousmane par exemple Barthé Daarou Salaam ndax li nga wax sànq encore nii Touba ak Mbacké ñaari gox yi benn bis la benn bis yow sa vision sàmm l'école en ligne parce que gis naa ni kër sëñ Tuubaa bi sax nga wax ne dañ ko transformé en lieu de culture gis également ni toujours damay prôné maanaam lu mu gën a mën a fondé loolu nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi pourquoi boobu ñu koy faral di gis si yenn leader yi koy prôné loolu est-ce que bu xaajaloo population bi wala dana jàpp avenir bi foofu la. Babacar. dama bëgg def benn précision domaine boobu bëgguma ci wax lu bari mais dina def benn précision duma daanukat duma daanukat ndax bu dee dox def naa vingt sept pays dans le monde pendant vingt cinq ans kon gis naa lu bari il fait plus de cinq cent et quelques villes dans le monde beneen bi ci un MBA en stratégie d' à l'Institut africain de management. J'ai un MGO en stratégie de gestion des organisations avec l'Université Québec à Chicoutimi en co avec l'IAM. J'ai fait un bachelor professionnel en marketing communication du ma daanu kat dox jàng naa. J'ai été à la primature comme conseil spécial en charge de la gouvernance. Je gérais tout ce qui est suivi des affaires municipales, toutes les synthèses régionales des gouverneurs pendant trois ans. j'ai géré les dossiers secrets de l'État pendant trois ans j'étais au cœur des choses Djibo yaa yàlla na yàlla xare aljana dama toog benn guddi YouTube li ko suivre ba quatre du matin mu xam ne ne homme d'État wala ko gérer les affaires de l'État li ngay xam da nga ko war a deewaale maanaam sunu taalibe nag li ñu Sëriñ Tuubaa defal moo ñu gënal yii nga xam ne day jeex ndax li ñu Sëriñ Tuubaa defal du jeex moo tax souvent da ngay dégg ñu lay takk ne di la tooñ doo tontu doo wax li tax ma xam ne ressource benn ressource benn ressource moo am diggante Touba ak Mbacke muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ressource boobu moo tax cinq millions de personnes di dajee Touba par Magal amul benn pays au monde benn activité au monde buy mën a regrouper cinq millions de personnes amul activité boobu ñetti fan di dressé plus de deux cent quatre vingt cinq milliards entre guillemets selon lu l'université Bambey loolu amul benn réew buy drainer mbooloo muy toll ak activité muy toll ci temps te ña fay daje kenn du jënd lekk kenn du jënd naan kenn du foo ñu koy fay héberge amul loolu nag ressource bi tax loolu am muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Cheikh Omar Fouti taal moo ko njëkk a fii ci Mbacké dèjà loolu marqueur territorial képp koo xamante ni tukkulóor nga yaakaar Cheikh Omar Fouti taal war nga ñëw ziyaare mbusoobe garab gi nga xam Cheikh Omar Fouti fa dañ njëkk a découvrir Sëriñ Tuubaa te yendoon fa Sëriñ Tuubaa yendu fa ci li muy bind Masaalikul Jinaan fa la nekk ça c'est un peut-être mbir dana am ña ko yor duñ ko xam duñ ko maîtriser joxoñ ko gëdd parce que xamuñu ko wala buñ xamee it peut-être du priorité beneen ba ci des ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Mbàkke nag feeñee jamono fi mu feeñee jamono fii conseil municipal délibéré na jébbal ko Cheikh Ahmadou Bamba pour sëriñ bi def fa daari kaamil yoo xamante ni dañ koy wàcc alxuraan continuellement doon preuve fii tey stade bi nekk kenn musu koo moom ci àddina bi fa Sëriñ Tuubaa jógee sañ ci Daaru Salaam ba tey nit musu koo moom stade bi damaa jàpp ne dafa faa nekkoon pour denc ko ndax bu fa nekkoon dañ ko morcelé même club olympique bi waxoon ñoo ko moom c'est pas vrai feneen lañ moom ndax titre foncier 1788 du fii fii kenn musu koo titre kon dafa newoon pour protéger ko moo tax conseil municipal délibéré jox ko Serigne Touba Cheikh Modou Mountakha commission bi liggéey ci commission bi présidée par le maire de Mbacké le chef de service des impôts de domaines le chef de service de l'urbanisme le chef de service du CARAS ñoo daje toog liggéey ci jébal ko préfet ñu approuvé ko ñu defar bail bi le gouverneur approuvé ko ñu dugal ko titre foncier ci def ko ministre bi au lieu mu indil ko ñi ko liggéeyee ñu dem jébal ko sëñ bi ñu coupe circuité màggal Tuubaa dem jébal bi mais loolu sa pas important ndax c'est politique mais li am solo mooy mbubb mii ma sol sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko yëkkati lépp ngir mbégte li am ci kër sëñ Tuubaa ndax dimanche la ñëw ci kër sëñ bi fii fii ci mairie bi wax ma li mu bëgg ma teg sama sama kéemtalaay kàttan ànd ci le conseil municipal ba ñu voté ko à l'unanimité jëbbal ko commission bi ko war a liggéey bi commission bi pare jëbbal ko le préfet mu approuvé ko ci loolu bis biñ ko jëbbale kayit yi mu sedd moo tax moom mii la soloon jour boobu ci la koy kon man awma droit sama kéemtalaay kàttan ma pare pour redresser pour relancer relance programme de relance boobu nag moo tax su ressource bi Touba am muy Cheikh Ahmadou Bamba ba tax ñëpp fàq ñëw moom lañuy ñuy en valeur moo tax ñu miirewaat barabu Mamoor Jaara borom saam ndax fi mu toll ci sëñ Touba fi ñu ko denc wërtoon na mel na meloon beneen bi ci des ñu liggéey li nga xamante ni mooy armée baax pour segam ñi ngi liggéey ak Sëñ Tuubaa armée li bàpp yi war na ko liggéey liggéeyin woo xamante ni ku fi jaar da xam na ay wàlliw ay nit ñu baax ñoo fi tëdd noonu lañu liggéey une partie di cimetière tukulóor yi am suñu meneen mbokk mu baax mu ñëw dugal ci loo ndax loolu noonu liggéey bi tamit église bi noonu la leen jàppale ñu defaraat église bi loolu waral bi nga xamee joxe nañ kër Sëñ Tuubaa ji ñu yëkkati cent tonnes ciment joxe dans un premier temps yëkkati quatre vingt tonnes joxe waat loolu bu ñu koy def pour kër Sëñ Tuubaa ji taxaw la te duñu arrêté bu ñu suñu borom dimbalee bu ñu jógee ci yii bu ñu yàlla def lay ndam lañ defoon dañ koy defaat ndax kër gi dafa war a liggéey bi dafa wërta taxaw fi nga daaneel laay tàmbalee muy ci wàllu këyit bi ñuy en 2014 dañoo jël huissier de justice mu defal ñu constat ci existant bi nga xamante ni mu am ci mairie ci wàllu kayit li fa nekkoon ci wàllu kayit bokk na ay années yoo xamante ni du am registre wala registre néew la ma jox benn exemple 2005 cinq registres moo am ci mairie de Mbacké juróom cinq registres mooy représente deux cent cinquante personnes daal chaque registre cinquante personnes lay def te douze mille personnes douze mille cinq cent personnes environ am nañ ay këyit ci deux mille cinq léegi nga xool léegi douze mille cinq cent personnes boo génnee deux cent cinquante personnes day def douze mille deux cinquante personnes yu am këyit te amuñu réseau li dal suñu agent yi du dara mu dul defaral nit këyit sukkandiku ci këyit yi xamante ni dafa jeex te nekkul ci réseau am na ci boo xamante de 1991 la officier d' état civil bi ko defoon mi ngi fi donc kon rëq-rëq yooyu ay mesures corrective la ñu war a jël loi bi am lu mu prévoir ci loolu waxtaan naa ci ak kilifa yi nga xam ñoo yore wàllu yoon li ci loi bi prévoir mooy nañu fexe ba ñooñu am kayit ñu continuer seen seen droit yooyu ñu continuer di ko am benn on va vers ce qu'on appelle la reconstitution des archives reconstitution boobu segam ñoom les autorités judiciaires d'accord tuñu bu andi kayit bu jeex ñu sukkandiku ci defaral la ndax nit bu amee quarante ci kayit am ci passeport am ci extrait bu jeex bu ñëwee da ngay defaral mais yoon aussi dafa am nu te loolu segam nangootuñu ko kon it nañu bàyyi xel ne li gën a jàmp actuellement mooy cette rencontre là bu ñu war organiser ak autorités yi nga xamante ñooy ñooy les autorités judiciaires autour d'une table dañuy def un diagnostic ci li nga xamante mooy l'existant parce que existant bi ñun déjà ñun bàyyi woon nañ ci xel ba defoon constat pour année yi nga xam ne yëpp amul registre reconstitution boobu buñ ko fa xasee def njariñ li muy jur mooy puisque ñun répertorié nañ plus de mille cent trente et quelques mille personnes dans le système registre yi nga xam existe na yu ëpp scanné nañ lépp lañ scanné bu ñu defee la reconstitution mooy ñi nga xam ne répertorié woon nañ nekkoon ci registre ñu créé ay registre yu bees tribunal parafeku ñu inscrire leen ci pour boobaa léegi problème bi jeex définitivement mais fii ñi toll nii li tax mu am ralentissement mooy ñi nga xam ne ñoom kayit di juddu te nekkul ci registre su ngeen tribunal ne ku nekkul ci registre bu ñu la defaratal kayitu juddu dañu obligé tamit arrêté ci ci pour ñooñu nekkul ci registre te seen droit la parce que ñoom defuñu dara c'est des citoyens mais cinq ak la ko jiitu officier ya fi nekkoon ak ñi doon gérer kayitu juddu doomu aadama yi ñooñu ñoo defuloon seen liggéey la preuve ni ñëw 2014 ay saako lañu fekk yoo xamante ay volets ñoo ci nekk. volet mooy bu bu amee bu ñu war a transcrire au lieu ko ci registre dañ ko doon transcrire ay papier yoo xamante c'est des papiers volants papier volant yooyu nag moom lañ doon day daf koy takk daf ci ay saako mu tawte bi mu tawtee nag ñu bi ñu automatiquement benn suba teel lañ ma woon ne oto mbalit bi génne na saako yu bari oto bi war ko tuur ci laa wax ne secteur municipal mu arrêté chauffeur camion bi ba ñu ñëwee après le premier adjoint da woy huissier de justice mu constaté pour xool ko ñi ci mën a ubbi ñu ubbi ko xoolaat xam ne lii ay ay transcription la day kayitu juddu yoo xamante nii dañ ko ci registre defal ko yàqu na kenn mënu ko exploité yooyu boo xoolee bokk na ci rëq-rëq yi nga xamante ni moo indi mais ñi ci am kayit reconstitution bi mooy li ne ci base bi la ñuy ci ay registre ci euh, président tribunal bi nga xamante moom mooy kilifa gi gérer tout ce qui est état civil benn liggéey bi mën a continuer mais pour vous dire que ci wàllu sécurisation teg nañu système boo xam ne ci état ci def rëkk te lu ci waay def balaa mat deux minutes une minute sur la machine da nga xam kan moo ko dugal ak nan la ko dugalee mais nag lii ay ay erreur yoo xamante ñiy jiitu woon dañ ko def moo rattrapé suma ay agent mais nag loolu pour protéger agent yi aussi il faut autorité judiciaire yi ak mairie bi toog ñu juboo ci benn programme liggéey ko pour aussi man ma ma mën a protéger samay agent ndax bu dul loolu lii day continuer ndax c'est liggéey la ñu fekke wuñ ko kon waruñoo conséquence warul dal suñu kaw li jëm ci transport scolaire déjà ñun amoon nañ un projet avec Tata pour waxtaan pour que ñun ñu joxe benn apport ñu jox ñu vingt Tata ñuy fay ndànk na bi ñu ci defar projet bi maa ngi ko dénkoon fu ñuy wax Dame Sow ak comité bi mu àndaloon liggéey nañ ci liggéey bu am solo déplacé wu nañ fi ànd ak Cheikh Fall bi nga xamante ni nekkoon na adjoint au maire mécanicien àndoon ak Mor Sow mécanicien àndoon ak yeneen ñaari conseil yi ñu dem seeti direction Dakar le directeur ba njuboo ci principe bi mais ARMP ñu accepté wul woon type de projet bi ñu waroon def li ñu accepté woon mooy lancer benn appel d'offre ndax concessionnaire yi nekk yëpp mën ci participer looloo tax nag dans nootu PDC dans notre PAI notre programme notre programme triennal d' investissement mooy PTI bi prévoir nañ en deux mille vingt trois deux cent dix neuf millions mais aussi am na beneen projet bu ñu teg ak Touba donc pan teg nañ deux projets benn bi ak Touba la dans le cadre de l' pour jënd ay bus pour transporter élèves deuxième bi dans le cadre d'un projet boo xam ni commune de rek moo koy porté pour mën a jël en charge les yi nga mi jeex na ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa disponibilité tàggatoo ak mbokk yi ba yeneeni jamono euh, insha allahu taala monsieur le maire waaw fi may daaneel kàddu yi rek mooy ñun suñu njiitu dëkk ñoo koy daaneel suñu bopp kenn duñu ko tànn les réalités de la commune waa dëkk bi ñoo xam ki gën ci ñoom nga xamante ni bu jafe amee wala bànneex moom la gis ki accessible ci ñoom ki nga xamante ni mi ngi liggéey suba ak ngoon guddi ak bëccëg pour jàppal leen pour ñu réaliser seeni rêve loolu jeunes yi xam nañ jigéen ñi xam nañ góor ñi xam nañ kon maa ngi leen di ñaax rek pour que incha allah rabbi dimanche mbooloo mi génn teel a ñu baat ci kër yi wante ñu sécuriser li nga xamante ni mooy vote beneen ci topp mooy ñu bàyyi xel ni am na ay doomu aadama yu jël ay xaalis yu bari di ko jox ay nit ak ay corruption ñu bàyyi xel ne xaalis yooyu ñuy joxe am nay jamono gënoon naa metti te askan na ko soxla te jamono yooyu gënoon naa tar mais nit ñi nelawuñu gëmmuñu nelawuñ xam nañ ku leen bëgg a utiliser def leen yéegukaay xam nañ aussi kuy sonn pour ñoom kon maa ngi ñaax jigéen yi ñu teel a génn mobiliser wu dem vote ñaax ndaw ñi xam ne dëkk bi cinq yi ñëw seen avenir dëkk moo nekk en ku ñuy jiital di ko tànn na doon koo xamante ni seen intérêt daf dëkk du jàpp dëkk kenn du ko délégué ridwan la alay ibrahima bi yàlla ba pare dane moom maa ngi lay conseiller conseil boo xam boo ko toppee li ma daloon du dal man li ma nekk maire lépp xaw ma ci dëkk bi dara samay pouvoir yëpp dama ko délégué woon ci weekend laa fi ñëw wa ilaa moom yaa ñëw yàlla ñaar wala ñetti fan laa fi fexeel ba sagam engagé wu jiite dëkk defal tout lépp loo man ba toog ci dëkk dund dëkk bi seeni problème ànd ak ñoom ci li xam ne noonu la dëkk war dafa ñu def te effectivement c'est vrai il a su tardivement kon nag dëkk bu fekkoon ab ministre doon ministre mooy tax sab dëkk dox Abdoulaye Diouf Sarr maire Yoff depuis de trois ans wala quatre ans mooy ministre de la santé te hôpital boo xoolee centre de santé Philippe Maguilène Senghor ba léegi centre de santé Mbacké bu tane bu fekkoon doon ministre mooy tax sab dëkk dox Omar Youm nekk na ministre des collectivités territoriales nekk na directeur de cabinet du président nekk na ministre du transport caajaay bokk na ci dëkk yi gën a arrière Sénégal ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite kon bëggoon naa leeral tuuti gis nga ministre yi marge de manœuvre néew lañu am ci seen ministère te loolu boo koy wax nit ñi duñ ko comprendre ministre actuellement boo xoolee dages yi nga xamante ñoo ne ñoo yore xaalis ak équipement yi ci ministère bi en général ñu ak ministre wala bu ñu jubóo dañoo jubóo pour dëngal dages foofu gis mu jubóo ministre ñoom ñaar ay sàcc la non dafa am loolu yomb comprendre daaj boo gis mu am complice ak ministre am ñoom ñaar ay sàcc la benn deuxièmement les ministères préfet yi préfet nit ñi xamul seen gëdd mais préfet yi ak sous préfet yi ak gouverneur surtout les préfets et les sous préfets ñoom ñooy liggéey ce qu'on appelle le suivi des affaires municipales saisie des affaires municipales mooy relater jafe-jafe yi askan yoon moo daan yéeg ba primature su yéegee primature ñu tas ko mu ñëw version territoriale ñu liggéey en version ministérielle liggéey naa ko trois ans bu ko defee ministère yi jot problématique yi nga xamante ni moo am ci collectivité yi problème yooyu moom la ministère technicien di jël pour tëgg ci li nga xam la planification année bi ñëw. planification yi nag ci lañu sukkandiku pour budgétiser te loolu bu xasee ñëw président de la république rek souvent moom mooy am prérogative ak possibilité ne tel projet tel projet nañ ko annulé defal tel projet mu ñëw à la primature les conseils réunis ci waxtaan bi defal ko fiche xool ni muy tëdd président premier ministre bu demee ba au mois de juin ñu mën a un projet de loi rectificative buy permettre changement yi njiitu réew mi joxe ne nañ bàyyi tel projet def tel projet ñu mën a ajuster pour mën a dem sur de nouvelle base kon ministre yi seen marge de manœuvre ci les projet de l' yi ñuy porté bariwul lool kon nag ñu xam ne kon dëkk du poste de responsabilité moo koy ne donc poste de responsabilité doon def Ibrahima Gueye yàlla na ko yàlla dolli leer nekk na ministre de la jeunesse est ce que def na état kon nag ñu xamee ko noonu ñu xam ne dëgg ña fa dëgg ñoo koy defar avec volonté ak xam-xam ak détermination donc ak euh, bëgg dëgg ko aussi c'est important élection locale 2022 ci département de Mbacké l'association des professionnels de la presse en ligne du Baol indi initiative bu am solo fa seeni ci ànd ak mboolem candidat toutes les coalitions toutes les listes mu doon municipal wala départemental jàpp leen seeni ay plateau ay émission ay directes ci concept bi ñu duppee tànneefu askan wi nga ci ànd ak ñun ak ay moyen technique yu xarala ngay am en direct sur plus de vingt sites internet mais également après le direct di nga am intégralité bi bu ngeen amatee ay caravane ay yi ay porte à ngeen def déclaration saisissez cette opportunité moo leen di yembal fa ngeen bëgg seen message àgg fa mu fa si li mu gën a gaaw a gaaw si ak ay professionnel si mbooleem wàll lépp lu ngeen ittewooti si wàllu wu ni mel couverture médiatique appel ba jóg taxaw tem ngir ànd seeg yéen bu ngeen si bëggee ay renseignement mën ngeen contacter numéro yii di défilé ak sunu service commercial local 2022 si département de Mbacké appel ba da see soobu ba jeex tàkk ngir gindi askan wi mais également gunge candidat yi